ini ngi seetaan Taha TV chaîne de la umma islamique darul alamin mamadul amin yonen yona na ku jug taxaw màggal yonent iya bi yàlla nga ñewat diwin yonen yona khayarul xayaarul alamin dawul kenn ñaaxu leen fay wala ken defu yeni ñu gis ni ñom hmm, hmm. ay rakk yu baax lañ. dëgg la te ñun suñuy rakk yu nekk kër ga ak suñuy rakk yi rek ñun la ñeemale def def leen benn. dëgg la moo tax tey bu rafet bii nii. Mm. jàppale ñu si parce que weer bii nii muy weer Ramadan. Mm. loo si def lu baax rek. Mm. yàlla da koy fóot. dëgg la moo ñu ne nañ def lii nii. ñun mbooloo bi. bu def yàlla fóot. moo gën tey benn nit di ko def. dëgg la parce que mbooloo bi am na. dëgg moo tax tey mbooloo bi ñaar. ñëpp ñu yóbbu ko def. moo tax nag ñu indi leen yére yi. dëgg la dëgg la. parce que dañoo ne woon ay téere alxuraan lañ indi. Mm. Mm. mais ñoom. Mm. seen jàng may na leen loo xamante ni. waaw a si. donc li ñu gën a soxla muy gën ay yére yu ñu sol. tey. na ci tey ñun su fekkee dañ jël ko Saalum ñëw bu fii soo sant nañ ko yàlla bu baax waaye nañ te yokkute bi ngeen ñi ñuy jàng alxuraan ni fii ci yéen ni seen biir yokkute bu ngeen bëgg ci koñ bi ak seen kër yi ak gox bi ñun bëgg nañu ko raw newuñ ci lañ nekk kon yokkute koñ bi ak avancement wu koñ bi ak avancement wu yaas bi mu muñ am ñaante leen ku ñaan bu baax yàlla muy yokk yàlla yàlla yokk leen yokk leen ci saayir yokk leen ci baatin yéen a xam daal fi ngeen bëgg yegg yalla sun borom yëpp yëgle leen fi lu gëna a sun seen su allier amé rek ñun dañu allier kon ñu jël ko sun sun goox ñu wu fi tek ci len nek yeen ngeen seq ñi jamm ak salam kon sant li eh, ñu war rek moy gëna sant yalla bu baax bit yaram am nak lu suñu borom lu gërëm musal len ci bëpp xéti galan ko bëpp xéti ndox ndax ka sun borom moo ne ngeen moom nekk yokkute saar yokkute baatin ànd ak ngërëma sunu borom bi jaay say jiwu jóg sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax incha allah dinaa wax xale ñu gën leen di ñaanal baax na jërëjëf ngeen baal ñaar jërëjëf ngeen baal ñaar waaw di jeego ah. waxat daaw naa kama amartana te ajib yaa rabbi كما يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المثال ودل من يلن بجرنا يغو يلن محمد وما يا رسول الله ما قال مصطفى مبلغنا محمد المثال جنات المليون لن Thank you.

gisee initiative bu xale yi si bis bi tey. waaw ah, initiative bi moom rafetlu nañ ko bu baax dañuy dañ ñaan yàlla yàlla dafa leen ci xawe seen i ndax ay xale yoo xamante ni bii yéen a ngi toll seen buñ àdduna seen morom li ci jógee di leen di leen ñaan di leen rendre hommage loolu moom fu mu doyul leneen mënu laa doy ñu leen di ñaanal yàlla yàlla saxal ko li ma leen di dénk rek mooy ngeen juboo nekk benn ndax lu mel nii. boo ko yëkkatee ci daara jël seen alal bu ci daara yi séddale loolu moom rafet la yàlla yàlla saxal yàlla yàlla defal leen xamal seen bopp doon leneen la du ci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

bi ngeen di xoolee nag comme xale yi nekk suñu kër yi suñu jàpp leen comme suñu ay rak moo taxoon ñu def journée bi def ay dons jox leen te aussi ñu bëggoon rendre hommage suñu ay membres yu génn àddina en l'occurrence Ousmane Mbaye ak Ousseynou loolu moo gënoon na tax sax ñu def ñu def ñu def ko ci weeru koor bi wàccee kaamil bi te aussi dinañ dinañ may ndog comme taan ni mu ko waxee ay booru 19 heures yooyu incha allah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa association bi. nuyu waale waa koñ bi waa quartier Daalu Alpha yëpp maa ngi nuyu jaar leen wax ni waa association defar sa gox ñoo am bis bi tey muy que ni suñu bisu gis boo xamante ni si la ñuy defar social si la ñuy jàppale taalibe yi si koñ bi si la ñuy wàcceel kaamil suñu ndaw yi nekkaloon ñu ñoo xam ne génn ngi wàcceel kaamil bi te kaamil bi jeexagul te yàlla yàlla nangu kaamil bi si kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di wax ni ne association bi ñu gën a góorgóorlu ñu gën a jàppante ndax lii la commencé pour am lu ñu lu ñu bëgg ndax tey ay ndaw bu ñu nekkee si dara di ko liggéey xëy na jàppale bii moo tax ñu ñëpp ñu ànd si loolu mais bu ñu boolewul doon benn rek après dañuy sonn mais ci kaw loolu kontaan bu baax di wax ne nii la aussi tamit ni nga ko defee nii la aussi tamit ndogu yi ñu war a def si kanam bëgg nañ ñëpp teewee ko ñu doon ndogu yu mag ku nekk gis sa bopp ndax social la lay def te weeru koor moom li si waay def yàlla lay suuf te bëgg nañ nag am si tiyaaba koor yi incha allah waaw loolu laa amoon seen li may wax nag waa kàddu Daarul Alamin Mamadou Lamine yoneen ñëw na ku jug taxaw màggal yonent bi yàlla nga ñëwaat déwén yoneen ñëw na xayaarul alamin muhammadu lamin yonent bi ñëw na muhammadu lamin ana soppe yaa rasulallahi muhammadu moo ma leen gënal jar na yëngu yonent bi ñëw na العالمين محمد الأمين لا إله إلا الله ولا لين ما ينلين بجر بجر ما ينلين تبي مصطفى محمد الأمين أنا صبي يا رسول الله ولا لين ما ينلين بجرنا يقول ينلين تبينونا يا العالمين محمد الأمين Amadou Abdoulaye Amina mooy yaayam jar na yëngu yonent bi ñëw na Mustafa Mamadou Lamine Mamadou xare na ba dar dar dàq na leen na leen ma yoon leen be jar na yëngu yonent bi ñëw na محمد الأمير محمد عبد الله سترون ين لين بجارنا ينغو ين التبينونا وأنا سبسيد محمد المصطفى محمد خرين بادر دار نحن لين سي سبان جارنا ينغو ين التبينونا محمد الأمين محمد عبد الله أمينة يا يمي جرنا ينغو ينلت بنيونا محمد الأمين محمد الأمين saalu ku dul mel ni yónneen be jar naa yëngu yónneen ti bi ñëw na Mustafa Mamadou Lamine kuma soppal yaar laay jógal màggal yónneen be moo nu gën yónnent bi ñëw na Mustafa mu lëhina Muhammadul misaalu kenn dootul mel ni yónneen be moo nu gën yónnent bi ñëw na Mustafa mu lëhina Muhammadul misaalu kenn dootu mel ni yoon leen bee moo nu gën yonent bi ñëw na Mustafa Muhammadu Lamin Mustafa ba mu xare Badar ñibbisi sunu waaja ab nan be ba xare ba ñibbisi ba mu xare badar ba ñibbisi sunu waaja aw nan be bay Fatima ak Seynabo bay Umu ba mu ba ñibbisi sunu waaja aw nan mooy Moustapha xaru xalqullaay ba mu xare sunu waajam na de ba mu xare ba dar ba ñibbisi xaru xalqullaay mooy Seyduna Muhammad ahmadu leena dami wa ahli wa awlaadin fi daawlo kenn dootul mel Muhammad Muhammad Dami wa akhli wa auladil fidaul wa Sayyiduna Muhammad Muhammad Abdan khadiman lahu muskan li sanadang sanadang Ahmadune Ahmadune Ahmadune Luma am joxna ko Sayyiduna Muhammad Muhammad Muhammad Muhammadun misal wa Shakar, Shakar, Shakar, Shakar, Shakar, abone bul fàtte abone bul fàtte